mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dund it ci weeru barkeel di weeru chahru ramadan ñu nekk tey suñu juróom-ñeenteelu bis war a jël suñu juróom-ñetteelu bind it ci saar wi nga xam ne mooy suuratu nisa di ñaan suñu borom subhanahu wa taala jataay bi yàlla na ko suñu borom yàlla nangu te it ab jullit war a xam ne bari na fu doomu aadama di yëkk ci tànkam di fa jëm waaye doomu aadama yëkkatiwul tànkam jëm fu gën jàngi xam-xamu diine lépp loo gis dafa am yoon yoon bi jëme àjjana mooy jàng ba xam loolu ku nekk ci ñeen war ci bàyyi xel fa lilahi alhamdu suñu borom yàlla def na it ay yombal ba tey nit ki mën ngaa nekk fu sori sori la ñuy def ca jàkka ja yegsi ci yow doonte ne loolu itamit suñu borom mën ko jaarale ci ay nit looloo tax ba jotaay bi ñuy amal fii am na ay site yoo xam ne boo demoon da nga ko fekk foofu la doon waa xam sa diine point net yi nga xam na ñoo ci doon cosaan ak waa xam islam point com gannaaw loolu it am na ay groupe yoo xam ne ubbi nañ ko ci turu jàkka ji di ca tasaare liy génne fii su ko defee ñooñu nga xam ne ñoo koy taxaw it yal na yàlla fay leen ca ñun ak ñoom yegg ca ñoom ñëpp yàlla wërsëgal ñu dégg ak topp kon incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane bu dee pare na.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم suñu borom mu ne man yuti rasula faqad ataa allah képp koo xam ne topp na yonent bi day ku mel noonu topp na yàlla wa man tawalla képp koo xam ne dafa dëddu won ko gannaaw fa ma arsalnaaka alayhim xafida ñun de yónniwuñu la ci ñoom nga nekk ku leen di wattu wa yaquluuna taa ñi ngi ñëw ne ñun day ak topp rek lañuy ci lañu nekk fa ida barazu min indik waaye buñ demee ba jóge fi yow bayyata taifatu minhum dana nekk di fanaane benn kuréel ca yow benn kuréel ca ñoom gayra allazi taqul lu bokkul ak la nga xam ne moom nga doon wax wallahu yaktubu ma yubayituun doonte ne yàllaa ngay bind la ñuy fanaane di ko wax fa arid anhum dummóoyul ci ñoom wa tawakkal ala allah ca nga wékku ci yàlla wa kafa billahi wakiila te doy na ci yàlla kese muy ku ñuy wakkirloo afala yatadabbaruuna alquran ama ndax ñoom dañoo settantalul alquran walaw kaane min indi gayrillah su doon dafa nekk doon jóge ci keneen ku dul yàlla day la wajadu fihi ixtilaafan kasira kon doon nañ fekk ci téere bi ay juuyoo yu bare bari wa ida jaahum amrun min al amni aw al xawf bu leen dikkalee mbir moo xam ne daa jóge ci ak kóolute ak jàmm wala ak tiitaange azaau bi ñu daal di koy tasaare walaw radduuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum doonte ne mbir ma buñ ko delloo woon ca yonente ba delloo ko ca ña yor seeni mbir ca ñoom la alimahu alladina yastanbituunahu minhum kon de dana ko xam ña nga xam ne ñoo koy génne la nëbbu ca biir walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatu bu dul woona ngëneelu yàlla ci yéen ak yërmandeem day lattabaatum sheytaana illa qalila kon doon ngeen topp sheytaane lu dul lu néew mbokk gis nañu suñu borom subhanahu wa taala bi muy yónni ay yonentam yonent yooyu daf leen garantir ñu nekk li ñuy tuddee maasum mooy ku yàlla aar ba du wax mukk di digle mukk jaamu yàlla lu dul la yàlla subhanahu wa taala digle loolu nag xeet bu mu mën a doon seen yonent rek la ko yàlla defal amma abubakar omar usman ali ak keneen kuy ñëw ba ila yawmiddin amoo yàlla may la lépp loo wax rek noonu la loolu mi ngi noonu amma yonent bi yàlla bi suñ borom yàlla moo ko aar pour mu jottili kàddoom borom bi daal di seede ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moom du wax ci diine yàlla ji ci bànneexu bakkanam lu mu wax rek dafa fekk ni yàlla ko sant mu wax ko su ko defee ñi ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it loolu moo leen war mooy ñuy bañ a waxi seen ba bànneexu bakkan lépp lu ñuy wax rek day fekk yàlla akub yonentam ñoo ko wax suñu borom yàlla boobu mu ni ki topp yonent yàlla day topp na yàlla lu yonent yàlla wax day yàllaa ko wax mu ñuy fàttali benn jigéen ci jigéeni sahaaba ya nga xam ne na góor ña doon ittewoo alquran lañ ko doon ittewoo toog na dégg abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu di wax naan yonent bi alayhi salaam day rëbb na jigéen ñay yokk seen karaw ya rëbb na jigéen ñay nekk di jamu rëbb na ña nga xam ne dañuy épiler ka leem seeni bëñ ila axiri mu ne ko yow ibnu mas'ud yaa ngi naan yàlla nee na yàlla nee na yàlla alquran la wax ak ñun loolu fan la ko yàlla wax ci alquran mu ne ko fi ko yàlla wax ci alquran mooy suñu borom day du moo ne wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonent bi lu mu leen digal jël leen te lu mu leen tere bàyyi leen mu ne ko waaw loolu ko yëg jàng naa ko mu ne ko maa ngi lay seedeel ne toog naag yonent yi yàlla bi muy tere lii may tere kon mbokk diine mi ngi noonu muy topp yàlla topp yonent yàlla borom boobu nag ni ki nga xam ne dañ ko ne lii la yàlla santaane mu wane gannaaw lii la yonent yàlla wax mu ne waaw waaye mee nag ku mel noonu suñ borom mu ni yónni wuma la pour nga wattu leen la ñuy jëf la ñuy jëf moom sama mbir la su ko defee yonent ak borom xam-xam lan la ko yàlla sant mooy jottalil ndigali yàlla jottalil tere yàlla jottali nga sa jaan wàcc na wa ma ala rasuli illa al balaax léegi nag yàlla mooy wattu ay jaamam yàlla mooy xisaab ay jaamam di leen régler yowmal qiyaam suñu borom dellu si ci naafiq yi nga xam ne lu bari ci saar bi ñoom lay waxe na am ndax boobu fekk ne lislaam am na doole ñu bari dugg ci biir fekk naafiq a tax borom bi nee na dañuy ñëw ci yonente bi ne ko ñun day temps ah day ndigal rek la ñuy déglu loo dig la ñu def mi ngi noonu comme ni ko nit yi tey di waxe waaye bu yonent bi joxee la muy joxe ci ndigal yàlla suñ fa jógee ba daje seen jataay ya benn déformé waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi seeni wax yeneen neex ni lii la wax gannaaw ba lam leen doon tere yépp ñu dellu ci di ko def lam leen santaane woon ñu bañ defuñu ca dara moom la borom bi wax noonu la ñuy fanaane ca li yàlla waxit ne dañ koy fanaane mbokk en général foo gis ay daje rek lu ci bëri ci ay caaxaankat daje yu guddi ay caaxaankat ñoo ci gën a bëri di daje naam exceptionnellement ay jullit mën nañ daje guddi waaye ñiy fanaane daje bu dee téeméeri ndaje quatre-vingt-dix-neuf bi ay caaxaankat la ñuy doon mi ngi noonu rasul sallallahu alayhi wasallam lañu doon wax kenn ci yéen day bu jullee gee ba pare na dem mu daal di tëdd ñu ne daan na bañ nit ki nelaw avant gee ak di lang waxtaan après gee na am tonte ne gee dañ ko waroon di xaw a guddee julli waaye lu mën a doon mbokk jullit ay jullit nu ñuy toogee di waxtaan mbiri àdduna yi kese kese ba deux heures du matin am na ñoo xam ne loolu la ñuy wax mënumaa nelaw avant une heure mënumaa nelaw avant deux heures ku mel noonu ndax dana yow quatre heures du matin di naafil abadan loolu kon guddi yi dañ koo jagleel pour nelaw suñ borom loolu la ñuy wax mi ngi naan naw ma subaata naw ma libaasa ku nekk laqo sa roq jéem a reposer nelaw te tous les médecins du monde réunis jàpp nañ ne loolu daa war jullit nit doomu aadama war na nelaw lum néew néew cinq heures de temps ci guddi gu nekk loolu kon mi ngi noonu amma ña nekk ci caaxaan ñu ngay fanaane leneen ba yeesal mi ngi noonu leneen du bokk la lu nga wax borom bi nañ ne maa ngi bind li ñuy fanaane wax naam daje ngeen ci seen daje yi bu dee formation yu bon yàgg yooyu ak une heure deux heures de matin ñu daje seen loge maçonnique yi ak seen yeneen yi borom bi nee na maa ngi bind naam parce que mi ngi yónni ñuy bind mi ngi noonu mi ngi yónni ñuy bind ca bépp jullit bokk na lim war a gëm amul kuy dox ci kaw suuf lu dul am na ñaari malaaka yu ko topp mi ngi noonu ki ndey joor di bind lu baaxam ki càmmoñ di bind lu bonam kon ñoo ngi bind lañu fanaane def réunion yooyu ñuy def di la comploter bum la tiital mooy dum moo yi leen bu leen sax faale ca nga wikku ci yàlla mi ngi noonu doyloo yàlla ca xam ne yàlla doy na ci ku ñuy wékkoo te it mbokku jullit na am bokk na ci wékku ci yàlla li la yàlla may ci sabab nga jëfe ko mais boo defee say sabab ba pare ngalluwaay sa xol bi bu ko aj ci keneen ku dul yàlla jënd waala amul kenn koo xam ne gannaaw yàlla mën na laa teggi lor bu naroon a dal sa kaw wala njoddil la njëriñ boo xam ne nii yàlla tudd ko woon ci yow kon dayu loolu yàlla subhanahu wa taala mi ngi noonu looloo tax ba rasul sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu tey boo doon génn sa kër looy wax bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi génne ci turu yàlla maa ngi wékku ci yàlla pexe kàttan ci loxo yàlla rek la nekk jeex na tawakkal ala allah borom boobu wëlbakut ak ñëw ci suñ téere bi mu ne waaw afala yatadabbaruuna alquran ndax nit ñi nekk ñu di settantal alquran ca xam ne day bu jóge woon ci keneen ku dul yàlla juyoo dina ca bari na am mbokk julit lu bari ci nit ñi tey settantal lu ñu alquran mi ngi noonu settantal lu ñu alquran te pourtant day suñu borom ba muy wàcc téere bi ne ni kitaabun anzalnaahu mu ilayka mubarakan li yadabbaru ayaati wala yatazakkaru ulul albaab téere la bu ñu wàcc mu barke lool naam ngir yi nit ñi di seetantal ay aayaam ngir yi nit ñi di fàttaliku mi ngi noonu mbokk sahabatul kiram buñ daan jël alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala di jàngale alquran taabiina yu toppoon ci ñoom dañ naan fukki aaya lañ daan jël jàng maanaa ya ca nekk yépp jàng nañ koy jëfe doog a continuer ci leneen donte ne ne ñooñu ko doon nettali nee na dana ñëw ci jamono ngi ñëw nit ñi di naan alxuraan nit ñi naane ndox waaye duñ ko settantal duñ ko faale loolu moo tax ba mbokk lenn ci borom xam-xam yi wallahi xataa sunu maami réew mii sax ñu leen di askaneel ne foo fekk ñuy firi alxuraan na nga daw soo delloo ci ay bindam dafa naan la benn aaya bi nga toogoon settantal ko ba xam la ci yàlla bëgg xam la ci yàlla tere moo gën ki commencé bismillahi rahmaani rahim baqara ba yegg naas te fekk làmmiñ ba rek moo ko tari boo ko alxuraan des koy settantal loolu moo tax ba da ngay gis borom bi subhanahu wa taala def ci ay kawtif yoo xam ne amul bis booy jàng alquran lu dul nga gis ci kawtif boo gisul woon ca njàng mu mu la woon gannaaw amul nga noonu këri bi ñaata lañ ko tafsir fii parce que bu ñuy nga gis nga dégg loo xam ne mosoo koo dégg ci tafsir na doon ak kum mën a doon yonent bi ali ali ibn abi talib daana wax alxuraan dana ñëw yowmal qiyaam nekk jànq nekk jànq ay xam ngeen différence jànq ak jeeg ay ay kawtifam kenn du ko jeexal benn aaya da nga koy jàng mille fois bis da nga koy jàng rek nga yëg ci aaya bi loo xam ne loolu ci yàlla rek lay jógee gis ngeen kon yatadabbaruna alquran borom bi subhanahu wa taala ne nag su doon alquran keneen na ko wàcc ixtilaaf dana ci bari lool mbokk téere bi mi ngi wàcc durant vingt trois ans bi yàlla di wàcc iqra ak bi muy wàccee wattaqu yawman turjauna fihi ila allah ñaar fukki at ak ñett la yii ngi wàcc madina yii makka yii ci tukki yii ci teewaay yii ci jihaad yii ci ila axiri mais boo xoolee alquran ba mu jeex amul benn aaya booy xool ne lii dafa ne contradiction ak lii te amul benn téere bu ñu bind ci kaw suuf demal ci université nga xool thèse yi docteurs yi di bind ñu ngi noonu amul benn thèse bu am dans n'importe quelle université du monde lu dul kookee ñu tuddee docteur bu demee def ay gëstoom ay ati ati ati at bu ñëwee ci kanamu professeur yi dañ ko daj da ko lii nangam lii nangam lii nangam amma alquranul karim depuis mu wàcc ba tey suñ borom mi ngi samp am ndëndëm ci géej ku am lenn loo xam ne nii mën na ko cee critiquer na xool du ci wàllu science li yàlla wax ci jaww ji dafa jiitu science dañuy dem kay ba découverte scientifique yi ñooy fekk ci alquran te ak a bari ak a bari ay scientifique yoo xam ne liñ mujj gis ci siècle bi fekk alquran waxoon na ko depuis quatorze siècle loolu moo leen tuub loo dugg ci l'islam nga dem ci wàllu histoire li muy wax ci xeet yi fi jëkkoon kenn mënu ko weddi nga dem ci wàllu médecine li mu ciy wax kenn du ko weddi nga xool sur le plan social alxuraan li mu séddalee miraas alxuraan li mu tëri la sëy amul benn borom xel boo xam ne dana gis ne lii contradiction la borom bi nag ne kon ci yàlla rek la jóge amaa nag ba doon te ne da nga dellu ci xam-xam moderne yoo xam ne jamono yi rek nit ñi gis bi ordinateur xewee ñu lay wax alxuraan ñaata yoon la ca malaaka ñëw ñaata yoon la ci jinne ñëw ñaata yoon la ci àdduna ñëw ñaata yoon la ci alquran ñëw turu allah nangam turu nangam nangam di la wax noonee na mu dëppoo ci ay chiffres exact loolee dafa doon loo xam ne nii lu jéggi dayoo ay téere téere la ci la ci doomu aadama yi di bind kon mbokk téere bi yàlla baa ngi nii dañ koo war a jël di ko settantal aaya par aaya wallahi bu doon dañoo jóge suñu kër daje ci néegum yàlla bi jël benn aaya kese benn aaya kese daa di koy settantal nañ ko waroon a settantale ñun ñëpp ñu dégg ko comprendre ko dem nit bi loolee lu jara def la laajal ñu dem Madina da ngay gis ne Abu Bakar Jaazir Jaabir al-Jazairi noonu la doon tafsiré mooy guddi gu nekk benn aaya guddi ga ca tegu benn xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee da ngay gis ne ndax la nga xam ne moo nekk ci alxuraan ci ay kawteef am na ci kenn ci ay borom xam-xam dañ daan am ñaari téere téere buñ daan jàng xaraf yi ndax xarf boo jàng am nga fukk tiyaaba kon ñu daan xëy di ci jàng lu bari am na ñoo xam ne nii dañ ko daan jàng lu bari bari bari bari ñu ngi noonu ci ixtilaaf yi nañ ko doon jànge waaye mu am beneen téere boo xam ne ñoom tadabbur rek tax moo moo tax ñu ibbi ko ba da ngay gis koo xam ne danaan bi muy jeexal alquraanam ci settantal aay yi def na ci ñaar fukki at ñaar fukki at bi muy commencé di def aaye ba mu commencé ca fatiha jaar ci baqara di taxaw di xool di settantal di taxaw di continuer ñaar fukki at def na ko ci amma bu dee kaamil bi ñuy tari di jàng nag mën na semaine bi moom ñu wàcc ko gis ngeen afala yatadabbaruna alquran bu jóge woon ci keneen yàlla ñu gis ci ixtilaaf yu bëri borom bi nag wëlbati ko wat ci naafiq yi ak jullit ñu doy di heure bu leen dikkalee mbir moo xam ni dafay jur jàmmi jullit ñi wala tiitaange ci jullit ñi wala ñoom ñu jàpp ni lii jàmm la ca du jàmm wala ñu jàpp ni lii tiitaange la ca du tiitaange ñu daal di koy jël daal di koy tasaare ca moo ne day bu ñu ko delloo woon yonent ba ba muy dund ba yonent bi dundul ñu delloo ko seeni borom xam-xam ñoom day dañu leen leeralal ana lan moo nekk ci biir loolu miñ noonu san bata bay génn la ci biir an baat ña nga daan wax ña daan gas teen yi di génn ndox ba ca nekk loolu moo tax ba mbokk wax boo mën a dégg dafa am aw déggin wuñ ci mën a am léeg-léeg yow mi nga xam ne amoo xam-xam loolee mën na doon lu la tromper lool nga wax ay wax yoo xam ne tegoo ko ci dara su ko defee yow jàngoo lépp lu la jeexal ci diine ji wool ko jàng nga laaj ko waaw lii moom lan la ci yàlla subhanahu wa taala jublu lan la ci yeneen ci yàlla jublu waaw xew-xew bii am moom lan moo ci position l'islam mi ngi noonu loolu la ndaw war a def démb benn xale dana may woo ci université Dakar mu ne ñun de dañoo bëgg a def marche pacifique loolee moom lan la ci l'islam wax man ko bu yemee ci li nga wax bu yemee ne pacifique mooy jàmm rek reyal nañ kenn ci yéen ngeen génn bëgg a dox ndànk wane ne lii ñu def day naqari nañu loolee moom waxuñu ci dara amma bépp marche boo xam ne dañuy dem naan dañuy tëje kaar ak yàq ak yàq ak jullit amul droit di bokk ci loolu jullit du wone meram loolu abadan gis ngeen borom boobu nag subhanahu wa taala ne bu dul woon ak ngenilu yàlla gom def ci ñoo ci jullit ñi ak yërmandeem kon la ëppoon ci jullit ñi daan topp seytaan ay mbokk yàlla dafa yërëm jullit ñi mi nga noonu dafa yërëm jullit ñi loolu moo tax muy wane it ne kon doomu aadama war nay tey war nay tey ci lum mën a doon ci heure boo xamee ni nii mbir dikkal na ko mu bañ caa gaawtu suñu borom nee na heure bu leen faasiq dikkalee ci benn xabaar fa tabayyanu na ngeen leerlu bala ngeen a dal ci kaw nit fekk na ay erreur la loolu muy benn ñaareel bi it mbokk am na loo xam ne nii lu bari ci doomu aadama yi tey settantuluñ ko mooy wax yi ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay dégg benn waay bu nekk ci rajo bi yonent bi yàlla nee na yonent yàlla nee na comme ki doon laaj fii démb rek yonent yàlla nee na guddeeg fukkeel gi ci ramadaan ku ci julli juróom benn rakka rakka bu ne nga jàng fatiha ak juróom-ñaari inal sana ak juróom nangam yàlla dana la may téeméeri ajjana ajjana ju ne téeméeri château château bu ne téeméeri lal ila axiri mbokk yoo xam ne yenent yàlla bi wallahi sori na loolu waxul loolu kon su ko defee lépp loo xam ne dañ koy wax ci yenent yàlla bi dafa war a ànd ak sukkandukaay ñu ne kat nii day la wax ji jaaree ci nit ñi wóor ba ñu xam ne li yenent bee ko wax amma wax ju ñu for rek yonent bi neen yonent bi neen loolu mbokk du sukkandukaay li ëpp sunu mag ñi nag dañ naan téere la ni nga noonu ndax ndax ñoo ko jàng ci téere ca mbokk téere yi ñoo ko war a jo yeem rek téere moom mooy ko mën a bind rek mën ngaa bind téere mën ngaa baax mën ngaa bon problème bi kay mooy la nga bind ci téere ba lan mooy sa dalil haatu burhanakum lan mooy sa preuve ci loolu loolee kon di mbir moo xam ne ni it julit mooy kii teey ci ay mbiram balaa jëf dara balaa wax dara yàlla nañu yàlla musal ci pexe seytaan
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسك بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا barakallahu fiik suñu borom mbokk mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faqaatil fi sabilillah xeexal ci yoonu yàlla laa tukallafu illa nafsak teguñu la benn responsabilité lu dul sa responsabilité bakkan wa xarridil muminin waaye encouragel julit ñi ñaax leen asa llahu an yakuffa ba'sa allazina kafaru mën na am yàlla day mu fekk ayu ñi nga xam ne dañoo weddi wallahu ashaddu ba'sa yàlla day moo gën a tar la nga xam ne mooy aw ay wa ashaddu tankila moo gën a tarit na nga xam ne noonu lay mbugale mi ngi noonu man yashfa shafaatan xasana koo xam ne def ne ramm goo xam ni ramm go baax la ramm mooy intervention koo xam ne day def na benn intervention bu baax yakun lahu nasibun minha dana ko ñel ab cër ca tuyaabay loolee nga xam ne moom la def wa man yashfa shafaatan sayia koo xam ne nag dafa def benn intervention goo xam ne nii mooy ak yombal gu bon yakun lahu kiflun minha dana ko ñeelit ab cër ca loolee nga xam ne moom la def wa kaana allahu ala kulli shay'in muqiita sa borom yàlla day nekk na ci bépp mbir koo xam ne nii ku koy wattu la muy xafiida wa ida xayitum bi taxiya heure bu ñu leen nuyoo ci ab nuyoo fa xayyoo bi axsana minha aw rudduha nuyoo leen nam gën a rafete nam nuyoo bu gën a rafet boobee wala ngeen delloo nañ leen nuyoo inna allaha kaana ala kulli shay'in xasiba yàlla day nekk na ci bépp mbir koo xam ne moo koy réglé mi ngi noonu mbokk suñu borom dafa sant yonent yàlla bi mu jihaad fi sabilillah naka ka yàlla sante woon noonu la ko defee lu ëpp ñaar fukki yoon génne na ko këram dem di jihaad fi sabilillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi noonu suñu borom ne ko nag yow day sa responsabilité bopp dong laa la sant amma julit ñi lan nga seq ak ñoom mooy ñaax leen ñu jëm ci jihaad ñaax leen ñu jëm ci xeex te loolee day wane ni rasul sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla sant muy fardu ayni ci moom moom na jóg jihaad yi ca julit ñi mu ñaax leen ñu jëm ci jihaad loolu it moo tax ba ali ibn abi talib nee na daanañ dem ci combat ak yéeféer yi ba kenn du dox suñu digganteeg yéeféer yi lu dul yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk ci kanam saxaab yépp nekk ci gannaaw ngir taraayu xeex ba nam xeex nam tare woon ñaaxal jullit ñi ci xeex keroog xare badr bi mu defee emplacement armée bi ba pare daf na nag jóg leen jëm ci ajjana joo xam ni moo gën a yaatu asamaan yeeg suuf kenn ca ndaw ña fa nekkoon omeru ibnul xamaam ne ko ah yéen yàlla yéen kon su ma dee woon tey ji àddina laa jëm mu ne ko wallahi mu daa di jël jaaseem xotti fi nga xam ne fa la ko doon dugal mi ngi woon ak yenn tàndarma mu ne su ma nekkee fii di lekk tàndarma yi pour dëgëru daf may tàndal sànni tàndarma yi daal di jëm ca noonu yàlla ya di caw di caw di caw rey ci ñoom lu bari ñu dog koo rey radiyallahu taala anhu loolee kon encouragé jullit ñi te it mbokk doomu aadama yàlla ko bindee ñu koy mu soxla encouragement xam ngeen ne sax football yi ñuy def ak yu ngeen xamul ña nga xam ne dañuy jouer ci seen dëkk ñoo ëpp chance gagné te ñuy jouer dëkku jàmbur lu waral loolu parce que ñii seen mbooloo dañuy ñëw di leen encouragé yéen a ngi dégg terme yi ñuy jëfandikoo troisième gaynde lu tax mooy ah ful bi nga xam ne supporter yi yi yi yi supporter équipe bi dañu mel ni ñi ngi joué ci terrain bi du dootuñu onze mais douze waaw douzième gaynde la ñu wax yaakaar naa naam seen gaynde yooyu xumb gaynde yi lan la ala kulli xaal mbokk ak a neexoon gaynde yooyu doon jihaad fi sabilillah waaye gaynde yoo xam ne quatre vingt dix mille topp ab balu këws rek tilli tilli tilli tilli mi nga noonu ak loolu ay mbir la yoo xam ne mi nga noonu waaye mbokk gaynde yi dëgg dëgg dëgg mooy yeneen bi ak i sahabaam ñoom ñoo demoon di jihaad fi sabilillah ñu leen di cor ay jaasi ca dem dellu gannaaw te mbokk xam ngeen gaynde bokk na lu yàlla def ci moom gaynde du daw da nga koy rey rek waaye loo mën a def moom dañ la attaqué mi nga noonu su ko defee ñay doon gaynde dëgg mooy yeneen bi ak i sahabaam ñaaxal sahaaba yi ci jihaad ca it ngeen xam ne ndam ci loxo yàlla la nekk su neexee yàlla mu fekk ayu yéeféer yi waaw gaa yi yàlla mi feggoon ayu yéeféer yi ca Badar fekk ko ca Ahzab fekk ko ca Xaybar fekk ko ca feneen nga def ne ayu américain yi tudd ko waay déedéet xanaa kay dañ leen waxoon démb mooy ndax jullit ñi nekk nañ ci disposition yoo xam ne dañ caa war a jóg di jihaad su doon loolu am ne day suñu borom mu ne mën na am ma fegal leen ayu yéeféer yi ñu ne ah mais yéeféer yi dañu nekk puissance grande puissance suñu borom mu ne déedéet y a pas de grande puissance ku dul yàlla am déet wallahu ashad ba'san mooy que yooñu grande puissance lañ ci suñu kanam donte ne ni biñ demee ba jullit ñi sukk lañ gis ne yéeféer yi dañu leen a sut waaye bu jullit ñi taxawoon dëgg-dëgg daañ gis na ñoom ñooy tim yéeféer yi loolu kon ka nga xam ne mooy borom kattan dëgg mooy yàlla waa qawmu Huud yàlla may ne leen kattan ci kaw suuf kenn mënul woon taxaw ci seen kanam ba ñoom dañ doon wax man ashaddu minna quwwa ana kan moo mën a am kattan gi ñu yor suñu borom mu ne awalam yaraw anna allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ndax xamuñu ne yàlla mi leen bind moo leen ëpp kattan donc mbokk jullit tey kattan gi ne Russie nekk États-Unis lañu xam ne ay jaami yàlla ñoo fa nekk Trump ak ku mën a doon ay jaami yàlla lañu matériel bi ñu utiliser ba créer seen bombe yooyee matérielu borom bi la jalla wa ala moo ko créer ñoom dañ koo jël rek daal di koy composer assemblé ko mu jur loolee mu jur kon kay yàlla mi créé loolu créé leen yàlla leen gën a xam lu ñuy mbugalee wallahu ashad ba'san te it moo ashad tankila ci ni muy fayoo ca ña nga xam ne nii ay ay ay noonam lañu borom bi subhanahu wa taala kon loolu la dénk jurit ñi buñ jógee bay jihaad nañ ragal yàlla te bañ a ragal leneen lu dul yàlla mu bàyyi loolu mu ne nag képp koo xam ne nit dafa jëm ci lu baax nga jàppale ko ca ba lu baax la sotti loolu day tuyaa ba ju rëy la lay jural te loolu itamit la yonent bi alayhi salaam daan ñu ñaax nee na man day sama mbokk jullit nekkoon ci aajo ma ànd ak moom ba aajo ji faju moo ma gënal tëju sama jàkka ji un mois de fi def itikaaf lépp loo xam ne nii sa doomu jul sa mbokkum jullit ma nga ca nekk lottu ca nga dox ca ak moom ba mu loolee sotti mbokk da nga xam ne loolu tuyaaba la la doon ak jaamu yàlla goo ko yombalal la ay mbiri àdduna loo ko yombalal la loolee ku nekk ci ñun dafa war a góor góorlu jéem cee jaamu yàlla yonent bi alayhi salaam nee na yàlla ngi nekk ci soxlay jaam bi fii jaam baa ngi nekk ci soxlay soxlay moromu jaamam man yasha shafaatan hasana yakun lahu rasulillah waaye contraire ba waa ji jógoon jëm ci lu bon nga jàppale ko ba mu sotti kii bëgg na njaaloog ndaw si nga fexe ba mbir mi yomb amal ko sëb néeg ñee bëgg nañu créer baal nga abal leen sa kër ñee ña nga nekk di def ay caaxaani bidaag yu kenn xamul yaa leen may courant ñee ña nga jóg di ilaaxiri mbokk bépp mbir bu nit ki jëm ca mbir ma nekk bakkaar nga jàppale ko ba loolu sotti da nga am bakkaar bu tal ne bi mu am loolu tax wax nañu leen fii lu yàggul dara rasul sallallahu alayhi wasallam di wax ne sangara day yàlla rëbb na ci fukki nit fukki nit benn kaasu sangara kenn moo ko naan fukki nit yàlla rëbb leen ci chaîne bi mu jaar ba yegg ci moom yëpp yàlla rëbb na leen waaw borom tool ba ak ka kay nga xam ne moo di réserve bi di ko nallu ka kay nal ka kay yëkkati ka ka jaay ka ka indi ka ko am magasin ka ka ka ka ba maa nekk fukki nit kii naan benn kaas bàkkaar bu mu am ñoom ñëpp am nañ ko ndax ñoom ñoo def ay pexe ba mu yegg si ci ñoom mi ngi noonu loolu it mu lay wante ji yow commerçant fi yàlla wërsëgal kattan nga dem bi Chine indi matériel bu jullit ñii di aajowoo wallahi loolu tuyaa bu juree la waaye yow mi dem bitim réew jël fa col gu bon gi nga xam ne sunu doom yi jigéen ñi ngi koy sol gu dégg bëccëg ak lépp loo xame ne nii ay produit la yuy jur merom yàlla xamal ne boo ci indi woon cent millions it bu ko mille personnes jëfee woon mboolem seen bakkaar yàlla dina la ko bindal sunu borom moo ne taawanu alal birri wala wala wa taawanu al birri wal ihsan wa wala taw taawanu al ismi wal udwan heure bu ngeen di dimbali taawanu al birri wa taqwa wala taawanu al ismi wal udwan heure bu ngeen di dimbalante di dimbali sa mbokk julit sa doom la sa waajur la sa dëkkandoo la sa collègue la kum mën a doon ñëw di la laaj ndimbal xoolal li nga koy dimbalee ndax lii ngërëmal yàlla mi ngi ci dimbali ko tuyaaba jore la waaye nga mu woo la jëm ci bakkaar sa bàyyi la sa nangam la sa kum mën a doon mbirum yàlla ngi ci def ndax da nga koy dimbali déedéet mu nekk erreur bu rëy bu nit ñi tasaare ci rajo bi ak yu kenn xamul sa bàyyi bu dee yónnee demal jëndali ma sàngara da ngaa war a dem demal jëndal ma sàngara da ngaa war a jënd mbokk déedéet bàyyi wares na koo topp ci ay ndigalam fii ak ndigal bi nekkul en contradiction ak ndigal yàlla sunu borom yàlla nee na jënd jënd sàngara xaraam na bàyyi ne kaay def li yàlla araamal ñu ne danga topp bàyyi déedéet laa taati li maxluqin fi maasiyati alxaaliq loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag subhanahu wa taala ni bépp mbir mi ngi koy wat muqiita doonte nam ñu koy firee muqtadira moo am kattan ci lépp mi ngi noonu waaye mi ngi wattu lépp jalla wa ala léegi nag suñu borom bàyyi wat loolu daa di ne bu dee dañu leen nuyoo cib nuyoo na ngeen nuyoo nam gën a rafete wala ngeen delloo ko mbokk nuyoo mën na nekk lu bëree bëri masalan tey jii boo demoon ci circulation bi da nga gis ñaari oto daje ñoom nu ñuy nuyoo mooy fële signal rek ngay def nga signal ko mu signal la maadaama yoo xam nga ni lii dalaa ci jublu nuyoo signal ko moom tamit gannaay mën na nekk fële nga seen ko seen nga ko seen na la nga tàllal ko loxo yow it tàllal ko loxo heure buñ la nuyoo nuyoo na nga xam ne noonu la gëne doonte ne nag bu dee ne dañoo jegewoo ñun jullit suñu borom mu ne ah nañuy fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yéen jullit bu ngeen demee bay nuyoo nuyoonte leen nuyoo ba bawoo ca yàlla di nuyoo bu tey ca barkeel su ko defee ñaari jullit dajante kii na ko caam mu na ko njaay ñu daal di dem nuyoonte wuñu ci lislaam de nuyantewuñ ci lislaam de ak luñ mën a wax nuyantewuñ loolee da ngay gis suñ maam yi loolu ci la ñu nekke woon bu dee suñu gone yi tey nag caama ki saara ki njaay sax xamatuñ ko alo booy alo booy ñu dóorantee loxo daal di continuer waxtaan waaye mbokk déedéet yooyu yëpp njuumte la yooyu yëpp njuumte la su ko defee jullit da ngay nuyoo asalaamaaleykum asalaamaaleykum donte ne yàlla ñu yàlla baal ndax ñun dégguñu arab dañoo ne salaamaaleykum waaye la ngay wax mooy asalaamaaleykum loolu ngay wax mooy yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen gis ngeen su ko defee la gën a gàtt nga ne ko waaleykum salaam mooy la gën a gàtt sa jaan wàcc na waaye nag la gënoon moom nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah yal na yàlla jàmmal leen yéen it ca ca ca yërëm leen amma nuyoo bi diggi doomu mooy booy nuyoo nga ne asalaamaaleykum wa rahmatullah bu ko defee ñi lay dégg daa di ne waaleykum asalaam wa rahmatullah seen jaan wàcc na waaye lu gënoon ci ñoom ñu dolli ci wa barakaatu nuyoo bi gën ci nuyoo nag mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak yërmandeem ak barkeem su ko defee ñoomit ñu tontu la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu loolee la ëpp ci borom xam-xam dañ ne foofu la nuyoo yem naam ndax rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ci jataay benn waay ñëw ne asalaamaaleykum yonent bi ne ko waaleykum salaam ashra daal ne fukk ñu toog beneen waay ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah yonent bi alayhi salatu wasalaam ku jëkke kenn wax na ko asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah am naa kii moom daa ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullah yonent bi alayhi salaam ne ko waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu daa dina ishruun ñaar fukk ñu toog keneen ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yonent bi ne ko waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu daal di ne salaasuun ca mooy delloo ko exactement li mu nuyoo saxaaba yi ne ko waaw yow kii day dafa ñëw wàcc nuyoo asalaamaaleykum nga ne fukk kay nuyoo nga ne ñaar fukk kay nuyoo nga ne fanweer mu ne waaw ki ñëw ne asalaamaaleykum kese am na fukki tuyaaba ci nuyoom boobee ki ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullah am na ñaar fukki tuyaaba ci nuyoom boobee ki ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am na fanweeri tuyaaba ci nuyoo boobee loolee kon la ëpp ci borom xam-xam yi ñu ne foofu la yem doonte ne am na ca ñoom ñu jàpp ne mënees na ko caa dollil wa maxfiratuhu yàlla na yàlla jéggal la lu tax ndax li yàlla ne na ngeen nuyoo la gën loolee loolee mbokk kon mi ngi noonu allahuma lu dul kon ñu wane ne mbokk nuyoo moom mooy fagg tuyaaba bu yomb mi ngi noonu ca it loolu mooy li subi xeet bi ku mel ni Abdullah ibn Omar daana dem marché dugg ca marché ba génn dara yóbbu ko marché ngir dajeeg nit ñi di leen nuyu jeex na loolu rek ko yóbbu marché dajeeg nit ñi di leen nuyu xam ne boo dajeeg fukki nit wax nga fukk fanweeri même boo yemoon ci asalaamaaleykum rahmatullah muy ñaar fukk fukk am nga deux cent tuyaaba ba pare ñoom jural nga leen ñoom ñu am tuyaaba te it ñoo xam ne léeg-léeg ndonge daar yi daan caxante ana ban farata ban sunna ëpp doole farata bu ko defee loolee lañ cay wax mooy ki nuyoo dañ ñu nuyoo sunna la nuyoo sunna la amma delloo bi farata la te ka nga xam ne moo sos nuyoo ba kooku moo ëpp tuyaaba ndax moom moo sos nuyoo bi ba pare jural la yow nga def tuyaaba kon nuyoo sunna la waaye fay bi moom nañu xam ne farata la mi ngi noonu sunu borom yàlla kon loolu la wax mu ne nag moom lépp lu mu mën a doon dara rëcc ko ci lépp mi ngi doon koo xamee ne nii ku koy régler la allahuma lu dul fitna amoon na fi suñ jam suñ gannaaw mooy bi ñu fiy wax problème nuyoo góor ak jigéen am na kenn koo xam ne fitna bi jóge ci ndongo loolu di Idrissa Seck am na ci position waaye moom moo indi woon it fitna nuyoo góor ak jigéen de daal di ne góor ak jigéen mën nañu nuyoon te joxe loxo bindu téeréem bind gone ci benn buuru Arabie saoudite buy nuyu buurub Angleterre dégg nga ca la ñu demoon bay wax sax ne nit ki bu ñëwoon sax ak jigéen accolade la war nga ko mën a accolade ndax yàlla dane fa xaj wa baax sëriñ bi mbokk yooyu ay mbir la yoo xam ne taxul woon yàlla di wax léeg-léeg nga dégg ñi xamul naan ibaadu yi du ñu nuyoo du ñu nuyu jigéen mbokk ibaadu dana nuyu jigéen ibaadu dadul jox loxo jigéen boo xam ne sëy dagan na seen diggante waaye bu rombee jigéen dana ko wax asalaamaaleykum jigéenu ibaadu it dana ko wax asalaamaaleykum lu dul yenn borom xam-xam yi ci fiir di wax naan jànq boo xam ne nii dafa taaro kaza wa kaza waaye loolu ay ay ay ay dangal la rek lay cosaan daal mooy suñu borom terewul jigéen ñu ñu wax wa qul na qawlan ma'rufa donc jànqax jeeg ku romb sa mbokk julit nuyu ko jàll bu la rombee nuyu la jàll yàlla mooy régler lépp mi ngi noonu Cheikh Ousmane
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم تتركوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا barakallahu fiik suñu borom mu ni allahu la ilaha illa hu yàlla day kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom la yajma'annakum ila yawmi alqiyaama dana leen dajale jëme ca bisu taxawaay ba laa rayba fiihi bis la boo xam ne benn sikk sakk amu ca wa man asdaqu min allahi xadiisa moo ana ko gën a dëggu ci yàlla ci ay wax fama lakum fi lmunafiqina fi'atayni mooy yéen jullit ñi lu leen ñeel ngeen nekk ci naafiq yi ñaari kuréel wallahu arkasahum bima kasabu ci yàlla moo leen delloo ci seen kéeféer ga ca lañ fàggo woon aturiduuna an tahdu man adalla allah ndax da ngeen a bëgg di jubal ka yàlla sànq wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila ku yàlla sànq day doo am ñeel ko benn yoon naafiq yooyu waddu law takfuruuna kama kafaru dañ doon mébét ngeen weddi comme ñoom nañu weddee fa takunuuna sawaa su ko defee yéen ñépp ngeen bokk yem fala tattaxidu minhum awliyaa xatta yuhaajiru fi sabilillah bu leen jël ci ñoom ñu ngeen di féetewoo lu dul dañuy gàddaay ci yoonu yàlla naam fa in tawallaw bu ñu dëddoo woon a gannaaw nag fa xuzuhum jàpp leen leen waqtuluhum rey leen leen xaysu wajadtumuhum fu ngeen leen mën a fekk wala tattaxidu minhum waliyan wala nasira te bu leen jàpp ci ñoom ku ngeen di féetewoo wala ku ngeen di sàkku mu dimbali leen mi ngi noonu mbokk suñu boroom mu ni amul kenn koo xam ne dana yeyoo ñu koy jaamu ku dul moom kaddu googu mooy kaddu gi gën a dëggu ci kaw suuf mooy kaddu gi gën a màgg ci kaw suuf képp ku ko deeyaale àddina la jëm mooy laa ilaha illa allah borom boobu nag mu ni dana masa dajale nit ñi bisu yowmal qiyaama mooy bis boobu nga xam ne rasul sallallahu alayhi wa sallam nee nañu juróom fukki junni at lay duure naam su ko defee suñu borom ne benn sikk sàkk amul ci moom ana ko gën a dëggu ci yàlla ay wax naam yàlla moo ñu bind bind asamaani ak suuf waa ji su ne mën naa dekkalaat nit ñi kay kenn waru ko weddi donte ne malheureusement yéeféer yi suñu leen masoon laaj ko bind asamaan ak suuf yàlla ku leen bind yéen yàlla ku leen di rey yàlla am maa dekkal nag loolu moom mënuñu ko woon a mën a dégg waaye suñu borom mu ne lii maa ko wax ci dinaa ko def borom boobu nag ne yéen nit ñi jullit ñi ca sabab bi yii mooy rasul sallallahu alayhi wasallam li mu xaree ca Badr lu bari ci giiri arab yi dañ daan ñëw ne ñun day tuub nañ dugg ci lislaam bu ko defee pour yonent bi jàmmal leen ñu wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñu seedal leen loolu amma bu ñu génnee dem dellu ci seen kéeféer ga dellu ci seen kéeféer ga léegi nag jullit ñi bi ñu xalaatee ne ñii dañu war a xeex ak ñoom ñu séddali ko am ñu ne ah mais ñoom ñëw nañ tuub dugg ci lislaam wax nañ laa ilaha illallah naka la ñuy nekk di di di di kii ak ñoom xeex ak ñoom am ñu ne déedéet ñii dañ koo def pour protéger wu rek waaye xoolal la ñu waxoon dañ ko def yépp defuñu ko bañ demee julli wuñu wooruñu defuñu nangam te loolu mbokk da ngay gis naafiq yi loolu daan wax ci yonent bi alayhi salaam balañ mu ne iza jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah ñu indi la gën a dëgër ñi ngi seede na yaa yonent yàlla bi suñu borom yàlla ne xam naa ne may yow yaa yonent yàlla bi waaye yàlla mi ngi seede na dañuy fen lu waral loolu mooy loolu ñu wax ak la ñuy jëf buñ demee dañ ciy safaanoo te loolu it ak ci bari suñu doom yi ñuy jël di leen may ay tubaab su ñëwee daal dañuy waxal laa ilaha illallah muhammad rasulullah jël suñu doom yóbbu Europe buñ demee continuer ci kéefër ga ñu nekkoon mbokk loolee duñ jàpp ne wax nañ laa ilaha illallah muhammad rasulullah ay jurit lañu ca nangu wu ñu jëfe lenn ca la ñu engagé woon ci l'islam moo tax suñu borom ne yéen jurit ñi waru leen ci woon a am juyoo ay naafiq lañu jeex na léegi nag ndax yéen jàpp ngeen da ngeen di mën a jubal ko yàlla réeral ku yàlla réeral kenn mënu koo utal benn pexe bu mu jubooy naafiq yooyee ñi ngi dox guddeeg bëccëg ngir bëgg ngeen mel ne ñoom te mooy islam yem ci làmmiñ kese bañ a yegg ci pratique te loolu mbokk malheureusement soo dellu woon laaj suñu doom yi nekk Occident ñi leen gën a xatal ci seen diine du yéeféer yi ñu fekk mais seen moroomu jullit yi day gis koo xam ne day jóg bëgg a julli waxtu yu juróom nga ñaan ko boy da nga ëppal boy li ngay def nangam fii lii kenn mënu ko kaza wa kaza loolee da ngay gis ay xatal yu tar ñu leen koy def loolu nag mbokk dañoo bëgg rek ngeen mel ne ñoom waaye jullit wax la ak jëf képp koo xam ne sa diine mi ngi yem ci wax ku mel noonu na nga xam ni suñu borom yàlla considéré wul la nga xam ne ni moom mooy sa wax joojee moo tax borom bi ne yaa ayuha alladina amanu li ma taquluuna ma la tafaluun mi ngi noonu borom bi nag ne ñooñu nga xam ne day dañu ne tuub nañ dugg ci lislaam bu leen leen considéré ay farado lu dul ñu gàddaay ñëw madina ca mbokk niñ ko waxe woon ci tafsir yi passé fa lillahi alhamdu ñun day tëmbawuñu ak gàddaay yonente bi alei salaam dana laa hijrata baada al fath bi mu ubbee Makka la ne nag léegi gàddaay jëw Madina nekkatul farata waaye avant ñu ubbi Makka farata la woon bépp jullit fu mu nekk bu tubee dugg ci lislaam mu jóge ci dëkkam gàddaay ñëw Madina ñu ngi noonu loolee comme ni yàlla subhanahu wa taala farataane ba léegi aj Makka ku ko mën da nga koy def ku ko mën da ngaa war a aj suñu borom yàlla ñoom ci génne rek al mustadafina min ar rijal wa nisa wal wildan waaye muy jigéen ña magge ña xale ya waaye képp ku nekkoon am kattan farata la nga gàddaa ñëw Madina suñ borom nag ne bu leen ànd ak ñoom di leen def farandoo lu dul ñu gàddaay ñëw Madina am maa nag bu ñu lànkee bañ a gàddaay ah fu ngeen leen mën a fekk la ngeen leen rey ca xam ne naafiq lañu ca mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiiri arab yooyu daan ñëw tuub dugg ci lislaam heure bu ñu daan dem jihaad dafa daan wax armée islamique campé leen gannaaw dëkk ba ci guddi bàyyi ba fajar jot ba jant bi fenk bu fajar jotee ba jant bi fenk benn nodd jógewul ci dëkk bi ñu xam ne kon ñii dañuy tappale daal di dem dal seen kaw loolu mu lay won mbokk importance nodd importance nodd ndax amul benn dëkk bu daan ñëw tuub lu dul yonente bi alayhi salaam jàngal leen da ngeen julli waxtu julli juróom ñu ne naam da ngeen di daje ci jàkka ji julli naam bu julli jotee ne kenn ci yeen nodd ne kenn ci yeen jiite comme ñam koy waxe woon Malik ibnu Uwayris ba nga xam ne moo ànd nag seen waa dëkk ñëw Madina def fa ay fan ba ñuy nibbi loolu la ñu leen ci bi wax bu waxtu julli jotee ne kenn nodd ne kenn jiite ñu ne naam am ñu dem léegi nag bu ñëwee ci dëkk bi ba jant bi fenk genn nodd jógewul ci dëkk bi loolee da ngay gis dañuy dal seen kaw kon nodd garanti jullit la yal na yàlla fayal ñu suñu noddkat yi mi nga noonu mi nga noonu loolu di xéewal gu rëy loolu nag malheureusement ab jullit nga dëkk ci dë nekk dëkk boo xam ne doo dégg nodd xamal ne yaa ngi ci musiba de mi ngi noonu xamal ne yaa ngi ci nattu noo mën a def pexe ba jóge fa jóge fa mi ngi noonu suñu benn waaye jóge na Espagne dëkk ba mu nekkoon nodd amu fa bi mu ñëwee ba mu dégg nodd ne na xaw naa jooy ah xaw ma ñaata at a ngi dégg moom nodd waaye mbokk loolu musiba la mi nga noonu suñu mbokk ba Abdou Aziz Touré hafizahullah daana wax kër gi gaaf ci kër yi mooy kër goo xam ne boo fa toogee doo dégg nodd nee na kër goo kër gu gaaf la yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk kon loolu la yeneen ci bari sam daan wax bu dee ne daal nodd ñu kon ay naafiq lañu suñu borom nee na xuzuhum waqtuluhum xaysa wajatumuhum te bu leen jël ci ñoom ku leen di dimbali wala ku ngeen di féetewoo ni ngi noonu Cheikh Ousmane
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة كلما ردوا إلى الفتنة يرتدوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا جزاك الله خيرا سن بروم سبحانه وتعالى مني إلا الذين يصلون إلى قوم lu dul ña nga xam ni dañoo jokk ji ci xeet woo xam ni baynakum wa baynahum misaaq seen diggante yéen jurit yi ak ñoom yéeféer ya kollire dafa dox aw jaaukum xasirat suduruhum wala ñu dikkal leen ma ngay nekk di xat seen xol ya lool an yuqaatiluukum ci ñuy xeex ak yéen aw yuqaatilu qawmahum wala ñuy xeex ak seeni xeet walaw shaa allahu la sallatahum alaykum su neexoon yàlla mu xiirtal yéeféer yi ci seen kaw wala qaataluukum ñu nekk di nekk di xeex ak yéen fa in ictazaluukum léegi nag bu dee ñoom fekk nañu leen fa lam yuqaatiluukum xeexuñu ak yéen wa alqaw ilaykum salam daa di sànn ci yéen ak juboo ak jàmmoo fa ma jaala allahu lakum alayhim sabila yàlla day deful ci yéen deful ñeel leen ca seen kaw benn yoon du ngeen am ci ñoom sa tajiduuna axarin da nga fekk ñeneen ca yéeféer yi yuriduuna an yamanuukum dañoo bëgg a jël seen kóolute yéen julit ñi wa yamanu qawmahum waaye jëlit kóoluteg seen xeet kullama ruddu ila al fitna heure bu ñu leen delloo ca la nga xam ne mooy fitne ba ca mooy shirka ba urkisu fiha ñu delloo leen ñu duggaat ca biir bokkaale ya fa in lam yatazilukum ñooñu day bu dee feguñu leen wa yulqu ilaykum assalama sànni ci yéen ak jàmmoo wa yakuffu aydiyahum fekk seeni loxo ci yéen fa xuzuhum jàpp leen leen waqtuluhum rey leen leen xaysu saqiftumuhum fépp foo xam ne fekk ngeen leen fa wa ulaika jaalna lakum alayhim sultaanan mubina te ñii day def nañ ñeel leen ci seen kaw la nga xam ne mooy lay boo xam ne lay bu leer la bokk ay yi ñuy jàng ci téere bi yàlla bi la bokk jàng ko tiyaaba moo ci nekk waaye aaya yi dañ koo mansuuxal dañu xam ni diinul islaam lépp ay étape la xatta julli gi ñuy julli commencement dafa nekkoon la nga xamee ni nii mooy ñaar ñaar ñaari rakka ñaari rakka commencement buñ daan julli dañuy wax ci biir julli gi commencement ila axiri koor gi étape la bu njëkk ko mosaan julli gi amatoo droit lekk ila axiri jihaat it ay étape la bokkoon na ci ay étape lii suñu borom di wax fii mooy nit ñi nga xam ni dañoo am ak ñoom kóllëre ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ba mu siñantee ca Hudaybiya moo gi yéeféer yi seen pacte boobee dañoo siñante ne léegi giiri arab yi ku mu neex na ñëw dugg ci farandoy jullit ñi ku mu neex na nekk farandoy waa Makka léegi nag képp koo xam ne farandoy jullit yi la yéen waa Makka du ngeen ko xeex ku farandoog waa Makka ñun jullit ñi duñ ko xeex te loolu moo waraloon fatxu makka ndax benn giir bi ñuy wax bani xusaa ñoom dañ ne ñun day jullit ñi la ñuy faral ndax du ñuy jullit waaye xam nañ ne yonent bi moo ëpp yërmaande moom beneen giir bi ñuy wax bani bakk ñoom dem farag waa makk léegi nag bis waa bani xusaa ak bani bakkar di xeex la doon pacte ba siñente ba mooy jullit ñi waruñu ci woon a dugg waa makk waruñu ci woon dugg waaye waa makk daal di yónnee détachement seeni ndaw ñu dem sot bànni xusaa rey ci ñoom ñu bëri ba nga xamee ne seen kilifa ga jóge na ñëw madina ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam netti lu ko li waa Makka def yonent bi ne ko bu ma la dimbaliwul yàlla bu ma yàlla dimbaleeti daal di jóg ca la takkee la nga xamee ni nii mooy xare pour dem ubbi ji makka gannaaw yàlla war googu waa makka war loolu moo tax yàlla xiirtal ab yonentam mu daal di ubbi la nga xam ne mooy makka kon yooyu amoon na ci début l'islam mooy xeet yoo xam ne nii dañuy amanteeg ñoom jàmm rasul sallallahu alayhi wasallam nag yàlla mu ne ko naafiq yi ñëw naan dañoo tuub fekk tuubuñu fu ngeen dajeeg ñoom rey leen xanaa lu dul daal ñu bokk ci xeet boo xam ne da ngeen siñeenteeg ñoom jàmm wala ñu ñoo xam ne ni siñeenti wul leen wul ca départ waaye ñëwal nañ seen bopp da la ah yow de Muhammad ñun day xam nañu si dini ji di dugguñu si waaye rek dañoo bëggoon nga may ñu ñun duñ la xeex ba faw ndax ñun bëgguñu xeex suñu dëkk ci it bëgguñu xeex ak yow su boobaa it loolu langul leen loolu gannaaw ba ila axiri ay atte yi bëri na ci waaye comme ni ma la ko waxee bañ demee ba atum juróom-ñeenteel ba ba yonent bi yàlla ubbi makka léegi giiri arab yépp ñëw nag di dugg ci diine yàlla ji afwaaja la suñu borom nag ne ko ñi nga xam ne dañoo lànk bañ a nag ñëw fu ngeen leen mën a fekk na ngeen jihaat ak ñoom ko defee mayatuñu leen ngeen di siñeenteeg ma dem baag ma paate lan moo fi des imma ngeen dugg ci lislaam wala imma ñu xeex ak yéen bu dee ña nga xam ne ñuy ahlul kitaab bu leen neexee sax seen lislaam mais ngeen joxe jizya mais dëkk bi moom islaam koy contrôlé ci loolu la chrétien yi nekkoon najran ñëw ah ba yonent bi alei salatu wasalaam siñeenteeg ñoom islam jiite dëkk ba mi ngi noonu ka nga xamee ne ni mooy waa xaybar islam it su ñeen teg ñoom gannaaw ba ñu leen gagné ñu nekk seen yahud bu ko defee islam contrôlé dëkk bi loolee kon mooy la nga xam ne dafa folli mboole mi aaya ya nga xam ne nii da doon wax ci na masla ba yéefar yi di am ak jullit ñi loolu mooy la nga xam ne moo ci mujj suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala kon noonu la tëralee ab téeréem di diine ji nga xam ne yar na ca sahabatul kiram ba ñu miin ko ñun alhamdulillah biñ ciy jot fekk ne yàlla wayefal na ko ak wayefal yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu topp ko ci jëfe ko yal nañu yàlla fay leen sahaaba yi nga xam ne ñoom ñoo doon dund la gënoon a metti wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala dane koo xam ne waaraate dikkal na ko mu daal di arrêté yàlla baal na ko lam defoon loolee kon la nga xamee ne mooy xaalis ba bu dee moom jaayu ko woon parce que ko xam traite bancaire xam ne bar bi lu mu gën a yàgg bar ba bi intérêt day gën a bëri su doon mën na delloo xaalis ba ngir intérêt muy fay gën a bari bañ a bari loolee dafa war a delloo xaalis ba bu dee na xaalis la boo xam ne consommé na ko ba pare tabax na ci kër jënd na ci oto toog dégg ñu ne kat loolu waru ko woon def loole du tee day fay banque ba waaye fexe ba beneen yoon ba ñu dugg ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam non waaw waaw kon incha allah ñu doy loolu waaw waaw ñu doy loolu di ñaan borom yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla defal dañ fi jot a dégg lépp muy njëriñu àdduna njëriñu àllaaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain